idéologiquement parlant c'est quoi être salafiste bon xëy na français bi ñoom ñuy wax salafisme wala salafiste mais bu dee ci arab salafi la ñuy wax salafi ñuy wax euh, salafisme mooy as salafiya étymologie bi comme nu nga ko waxee as salaf mooy ku prédécé bu ñu waxee as salaf mooy les prédécesseurs mooy ñu jiitu ñu jiitu léegi dafa am euh, benn mbir boo xam ne ci loolu la tegu mouvance bi ñu tuddee mouvance salafiste. waaw balaa ñuy ñëw ci xëy na baat bi ak ni ñu koy waxee ci jamono yu mujj yi. ci lu mu dellu mooy dafa am benn principe ci lislaam mooy bu nga xamante ne yonent bi jóge na fi alayhi salaatu wasalaam. Hmm. lislaam bi di yaatu di gën a màgg dafa am ay courant yu commencé di juddu. Hmm. courant yooyu ci nekk dafay am ay leaders yoo xam ne ñoo koy ñoo koy jiite. Hmm. am seen vision ak seen gis-gis ak yenn façon yoo xam ne la ñuy interpréter textes loolu yóbbu leen ci ñu créer un ay branche am ñoo xam ne dañ ne loolu nga xamante ne bi moom moo am di juddu ci ay mbir ak ay xalaateen yi ñu gisee lislaam ñoom loolu doyu leen ñoom daal li ñu bëgg a def mooy cramponné wu ci li nga xam ne mooy source bi li fi nekkoon li jiitu woon te loolu li koy symboliser mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ak ñi mu àndaloon surtout les trois premiers siècles ci l'islam yi nga xamante ni mën nañu wax mooy suñuy siècle de lumière yi nga xamante ni ñoom la yonent bi alayhi salaatu salaam taggoon wax ne xayru ummati qarni alladi boytu fihi na alladina yalunahum summa alladina yalunahum summa yafshul kadib mu waxoon ne siècle bi gën ci xeetam mooy siècle bi nga xam ne si la moom feeñ ginnaaw bi deuxième bi ginnaaw bi troisième bi ginnaaw bi mu wax ne jikko yi lu bari dina ci yàqu ci jikko nit ñi léegi loolu bu buñ ko gisee noonu gis ne borom xam yi nga xam ñooy ñi gën a mag ci lislaam di kàngaam yi nga xam ñooy érudit yi gën a mag ci lislaam ci trois siècles yooyu dund voilà ñi nga fi tudd di leen cité yépp ñu leen di wax comme ay référence moo xam ay imam Malik imam mm-hmm. Abu Hanifa Shafi koo fi tudd si ñooñu ci siècle yooyu lañ lañ lañ nekkoon léegi ñoom ñu wax ne kon ñoom dañuy delluwaat ci nit ñi doon dundee lislaam authentique ci jamono jooju léegi loolu référence boobu nga xamante ni moom lañ jël loolu moom moo indi baatu salaf salafisme mooy l'orthodoxie pas orthodoxie sax mm-hmm. parce que orthodoxie sax mën nga ko wax tuuti xëy na am na tuuti différence mais boo waxee salaf la moo salaf boo ko jëfandikoo baat la boo xamante ni lu muy tekki mooy prédécesseur yàlla jëfandikoo na ko ci Qur'an fa jaalnaahum salafan wa mathalan lil axirin yàlla bu muy wax par exemple ci firaw na ni ko yàlla détruire détruire li nga xam ne mooy royaume daf ne yàlla daf ko def pour jox ko mu nekk exemple nekk benn exemple buy prédécé hmm. nga xam ne dafay jiitu ñi nga xamante ni ñoo ñëw ci ginnaawam ci yeneen génération bu ñëwee dinañ gis histoire firaw na mu servir leen de leçon léegi kon un prédécesseur wala des prédécesseurs ñoom nu ngi leen di qualifier mooy la moo salaf. léegi man su ma jëlee sama bopp ne damay askanewoo ci prédécesseurs yi jiitu ci lislaam salafi laay doon. Mm-hmm. loolu moo indi la yaa boobu noonu ciy dolli. Mm-hmm. loolu moom may def ma nekk salafiste. Mm-hmm. kon dafa am salaf. mooy ñi jiitu woon ci l'islam le salafiste mooy ki nga xam dafay wu ci ñoom ah. maanaam moom dafay kale l'islam moom ci ñoom ni ñu ko doon dundee léegi loolu lan moo ci diabolique kon bon lan ah, moo li nga ma expliqué leer na waaye léegi nag lan moo waral kon dañuy xool nit ba mu neex la ñu ni diw salafiste la léegi lan moo indi li li tax loolu xam nga dafa am. li ñu waaye terewul moom salafi moom. Mhm. musulman la jullit la. ah bien sûr courant la. mën nga ko tuddee courant mais mën nga wax ne képp koo xam ni dafay topp yonent bi di dellu ci saxaaba yi. waaw ak ñi dund ci trois siècles yooyu. salafi la mën na utiliser terme bi comme mën na ko bañ a utiliser. waaw léegi kon léegi waa léegi. mën na ko employé ko mën na ko parce que même mag ñi fi nekkoon seen mbind da nga ciy fekk baatu salaf. waaw Cheikh Cheikh mais ñi fi nekkoon sax man dama déggoon ñu naan dañu ñëw pour dépoussiérer ah bien li nga xamante ni mooy euh, jàngale yonante bi. bépp borom xam-xam boo waxtaanal ci lislaam dina la wax ne lislaam amul lu ci gën a wér loo xam ne dafay référé wu ci siècle yooyu. waaw léegi amul waa léegi donc où où se situe le problème. li ci fi problème bi nekk mooy sànq da nga wax fii léegi ay euh, éléments de langage. nga jóg nga wax waaw maanaam léegi ay technique de propagande moo am ci àdduna bi. dañ nekk ci ànduna boo xamante ni dañ ko war a façonné waat xam nga bi Samuel Huntington di wax ci wàllu choc des civilisations choc xam nga dafa nekk ne occidentaux yi après les deux guerres mondiales xam nga wax léegi ci deuxième guerre mondiale mhm. bi nga xamante ne bi dañoo dominé waat àdduna bi mhm. hégémonie hégémonie wu anglais yi xaw a daanu tuuti américains yi ñëw ak mhm. seen empire bu bees bi muy muy bloc capitaliste bi bi ñu daanoo àdduna bi ñoom dañu bëgg ne benn force dootul taxawati seen kanam boo xam ni duñ ko mën a xëy na occidentaliser mu nekk ci seen suuf ànd ak ñoom ma boo tax moom ci boppam Huntington bi muy wax ci civilisation yooyu nga xam ne xëy na mën nañ dem bay fénqaloo tudd na ci l'islam ci yim cité quoi. Mhm. daf ko considéré comme benn civilisation alors que religion la bien que civilisation bu nekk ci kaw religion lay tegu. Mhm. moo tax ñoom seen civilisation bu moderne bi nga xamante ni ci athéisme la tegu. Mhm. ci laïcisme la tegu. nekkul loo xamante ni luy mën a yàgg la. ndax ñu dañu jàngul histoire doomu aadama. li ñu tuddee religiosité léegi. bu fekkente ni ñoom considéré nañ l'islam ne benn civilisation la boo xamante ni buñ ko pratiquer ni ko jullit ñi war a pratiquer ak li ñuy représenté ci àdduna bi dafay nekk frein buy bloqué ñoom ni ñu bëgg a occidentaliser àdduna bi oh. il faut que kon ñu jéem a stigmatiser yenn groupe ci jullit ñi oh. ba wan yeneen jullit yi ne leen na ngeen désolidariser wu ci ñi parce que ñi problème lañ ni ñuy dundee l'islam bi parce que lu tax mooy ba en France loolu moo indi woon li ñu doon wax ci seen identité nationale bi. ci wane ni ñi fi ñëw di fi indi l'islam boo xamante ni mënta dem nekkul lu compatible ak li nga xamante ni ñoom moom lañ tuddee les valeurs de la république. Mhm. loolu problème la. ok boo gisee Zemmour Éric Zemmour. ci loolu la doon surfer. ba léegi sax xëy na Marine Le Pen ay temps jëloon na fi discours boobu mais xaw na tuuti wàññi tuuti ay waxam. mais léegi loolu moom mooy problème ci àdduna bi mooy léegi wax ne ki nga xamante ni salafi la. kooku mooy koo xamante ni daal benn euh, Usaama Ben Laden la bokk dafa nekk fële ci grotte yi yore benn ko fam di xaar ku njëkk romb mu rey ko kooku mooy salafi bi quoi léegi loolu mën naa wax ne propagande rek moom moo ko indi quoi léegi salaf salaf am na sax caricature la am na sax lu luñ ci doolee di wax salafi jihadiste salafi jihadiste salafiste jihadiste dañuy wax salafi di wax salafiste jihadiste mooy bu ñu gisee kenn koo xamante ni mi ngi xeex fenn ci àdduna bi mhm. ñu xool ko ba xool ko gis ne kii day réclamé wu ne ci mouvance ahlu sunna la bokk mhm. ñu dollil ko ci salafiste jihadiste <laughs> bu dee koo xamante ni bi nag mi ngi sol ay yéreem bu ñu heure julli jotee mu dem julli ji ak yu mel noonu mhm. te moom xëy na gisuñu ko ci yu mel noonu nekkul nit koo xam day jëfandikoo violence ci lenn ñu jëfandikoo baatu salafiste pour diaboliser ko ok léegi nag lan moo indi loolu ba tax mu nekk luy dellusiwaat ci politique bi mooy xam nga après euh, indépendance yi am na benn xëy na génération bu fi njëkk a jaar ci intellectuel africain yi fi jàngee xam-xam ñu bëri ci ñoom l'islam desoon na jeexital ci ñoom trop. Mhm. parce que boobu xëy na njànginu l'islam bi tasaaroo woon trop ci dëkk bi. Mhm. Mhm. ci ëttu kër yi ñu tuddee ay kër diine ci daara yi rek la desoon noonu population bi dese woon na trop jaxasoo ak ñi nga xam ñooy yëngatu ci xam-xam. boobu xëy na moyens yu moderne ci intique yi mu doon wax yi doyen doon wax léegi tasaarogul discoursu l'islam pour nit ñi mën ko dégg torop mu agsi si ñoom jafewul jafewoon na beneen bi aussi mooy amoon na tamit benn écart bu amoon diggante ñi doon jàng tubaab ak méfiance sax laa koy tuddee ak ñi doon jàng arab ndax tubaab yi li fi jaar ak jàppante bi ñu jot a jàppante ak nitu hmm. tuuti méfiance hmm. envers ñi jàng tubaab ba tax na ñenn ñi moom daanaka sax du jullit wala yu mel noonu hmm. noonu lañ ko doon xoolee moo tax yenn gox fii ci Sénégal nanguñu woon seen doom di jàng tubaab loolu taxoon na intellectuel yi fi nekkoon di jàng tubaab vraiment l'islam bi jaxasoo wuñu woon ak moom trop jeexitalu woon trop si ñoom ñenn ñi ay gauchiste lañ woon. yoo xamante ni bi vraiment dañ ko doon sax revendiquer ak yu mm-hmm. mel noonu. ñi si dem jàng ji si ñoom ñëwaat ñu si bëri si ñoom doo gis si ñoom benn pratique bi. Mm-hmm. mais bi nga xamante ne bi suñu société bi ak sociologie wu sénégalais yi changé na ak nouvelle technologie ak nu mu demee xale yi nekk ci école yi dañuy génn ci classe dem julli ci jàkka ji. Mm-hmm. xale yi nekk université dañu jógee fakk dem ji dem julli ci jàkka ji mhm. bu ñu noo noodee ajjuma nga toog sa prof toog ngeen di julleendoo ci jàkka ji bien sûr dégg nga amatoo leen complexe ci wane seen diine ak fi ngeen fi ngeen bokk seen appartenance waaw amatoo leen ci léegi benn complexe da ngay jàng nekk mathématicien bu mag di toj mais malgré loolu jullit nga jullit nga catholique nga catholique nga amuloo ci problème ci loolu da ngay pratiquer sa religion léegi nag pratique boobu dellusiwaat ba feeñaat léegi ci xëy na milieu politique bi ñu gis ne am na ñoo xamante ni malgré ay intellectuel lañ ñii ñi ngi aspiré pour dugg ci wàllu politique ñi sax ñi ngi laaj réew ñii ñi ngi laaj nangam mais ñu seetlu si ñoom benn pratique bi ak benn am diine bi léegi loolu dafa am lu muy suscité ci benn peur ci boppu tubaab yi léegi nag ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo bëgg a xëy na jàppala jàppante ak ñoom wala am ak ñoom ay problème léegi-léegi ci peur boobu la ñuy joué mm-hmm. loolu benn la ci tubaab yi ci ragal tubaab yi wan leen ne kii ci mouvance salafiste bi nga xamante ni yéen mënoo leen jëflante ak ñoom ndax ñoom dañu rejeté occidentaux yi mel noonu ci ñooñu la bokk léegi mu bu ko defee mu indi benn njaxas beneen bi ci des mooy wàllu këru diine yi muy tarixa yi nga xam ne ñoo fi ëpp doole au Sénégal mm-hmm. te loolu ci li doyen doon wax léegi ne dafa am ay fondamentaux yoo xamante ni ci réew kenn waru ko foowee kenn waru ko caaxaane mm-hmm. ak lu ñu politique politique ak lu ñu galgalante galgalante war nañ moo tindiku ba yenn yoo xam ne dafa war a nekk lu sacré loo xam ne mais loolu lu bees te depuis kañ lañ bi fan la féete ban tarixa la bokk wala ban diine la bokk puisque ñun suñu premier président de la république il était euh, chrétien catholique la woon catholique gi mu doonoon teewul majorité réew mi ay juddit lañu ñen ñoo ko gënoon jàppale këru diine yi dem na ba Senghor bi ñu ko laajee euh, bi ñu laajee sëñ Fallou ni ko lu tax ngay jàppale Senghor mun leen waxuñu ma pour ma fal imam falloo wuñ ma imaam mhm. njiitum réew lañ may falloo kon damu diine ba mu bokk intéressé wu ma li ma intéressé mooy développement ak idée yi mu am ci réew mi. pour jëmale ko kanam ñoom ñoom seen seen côté ba léegi loolu mel na ni changé wul. parce que seen jëflanteeg nitu politique yi gisuloo ci trop ñuy. lijjanti ak ndax mu ngi julli ndax mu ngi woor. ça ne les intéresse pas man lool ci ñoom. waaw ñuy teg ay condition yoo xam ci yooyu lañu mais beneen côté bi ñoo leen di tiitloo ñoo leen di ragal parce que dégg nga fi ay discours ñi bu ñëwee fii dañuy toj ay bàmmeel. ñi dañuy def li ñi dañuy xam nga. te ñooñu noonu. ñi ñuy wax dañuy toj bàmmeel ci réew mi lañ juddoo. fi lañ yaroo fi lañ jàngi fi lañ màgg stratégie de peur boobu léegi ci lu mu nar a yóbbu mooy jaxase kër diine yi quoi mooy xëy na tiital sëriñ si ak taalibe yi nga xam ne xëy nañu ñu ci bëri si ñoom hmm. xamuñu wan leen ne kii daf leen contre dafa contre seen imam dafa ko maanaam wax ne nit salafiste la en quelque sorte hmm. lu muy tekki mooy wax ñi nekk ci tarixa yi nekk dafa contre seen ngeen nekk loolu lay tekki. waaw même bu ko contrer acceptons mu contre ko et après. waaw amul droit amul droit gëm li mu gëm. léegi dañu xamul ne lu bari changé na léegi ci ci nit ñi parce que bu njëkkoon fii Sénégal amoon na benn tamit xëy na ñàkk miinante ak ñàkk a xamante ak ragalante bu amoon ci wàllu xëy na obédience. ci islam ci ñi nekk ci mouvance salafiste bi ak ñi nekk ci mouvance sunnite bi kii bi euh, soufi bi. xëy na ba tax na nit ñi boo musaan a wax nit rek nekki ci dëkku naar yi la jàngee parce que bu njëkkoon sax nit bu musaan jàngi yi ñëw ñu nekk oustaz la nit ñi dañ koy xool ni benn bët mel ne comme ku ko xaw a ragal parce que parce que parce que rek bokkoo ci ci confrérie yi mais léegi am na defe am na changement bu bëri bu am man par exemple man mi di damay wax di def ay discours di jiite mais da ngay dem dugg ci magasin di jënd wala dara fekk fa benn taalibe boo xam ne ci kër diine yi ba boo ñëwee ñaari loxo la jox ne oustaz maa ngi déglu sa sa say xutba yi mais parce que diine bu dee lislaam moo la tax jóg ñun di woorandoo di defandoo les mêmes pratiques lan mooy suñu différence. gis nga ñun ñi ñun ñi dañoo souffrir ci loolu avant problème bi di posé wu ci côté politique parce que ñun dañu jóge fi dem jàngi ji dem ci université yi ci àdduna bi jàngi xam-xam comme nu professeurs yi fi nekk jógee fi dem jàngi ji xam-xam par exemple yow da ngay ñëw tey nekk docteur par exemple mathématicien wala lenn mm-hmm. nga ñëw benn problème mu mathématique teew ñuy dem di laaj benn dawalkatu charrette mu ciy wax xalaatam ko ba pare yow mi nga xam ne yaay spécialiste bi mu lay diaboliser. waaw ñun ñi jàng diine aussi même loolu ci la ñuy souffrir. ndax da ngay ñëw boo ñibbisee sa réew yàlla am na lu mu la jox ci xam-xam. kenn déggu la ngay saaga kenn kenn déggu la ngay mën a benn discours bu violent. bien li ngay wax chaque fois ci xam-xam ngay wax di teg say argument. loo wax yaa ngi cité ay textes di indi ay règles ci wàllu xam-xam di ko respecté. Mhm. xam-xam bi nekk sax yow daf la yar. ba ku jëflante ak yow gis ci yow benn dal benn ragal yàlla ak moytu lu bari loo xam ne yu nit ñi di dugg yow doo ci dugg mais malgré loolu dañ lay ragalloo nit ñi am benn <laughs> ay groupe yu nekk ci beneen côté bi di la di la diaboliser di toog di def ay discours di wane na yow benn waay bu bon nga bu soxor nga bu kii nga boo xam ne yaa fi nekk di saaga diw yaa fi nekk di wax alors que ki jànge euh, Harvard États-Unis wala Oxford mhm. ci réew tubaab bi ak ki jànge Euh, nu ñu koy waxati euh, Égypte wala Arabie Saoudite wala Yémen mais waruñu am différence non école école occidentale bi nga jànge di fa jàng mathématique wala médecine kii dem jàng école boo xamante ni réewu arabe la ci langue arabe lay koy jàng yow ci langue française nga jàng kii di jàng ci langue arabe léegi lan mooy différence bi. daanaka xam-xam du ñu am problème. gis nga maanaam professeur mi bu di waxtaan fii. waaw doo dégg benn problème suñu diggante. même bu ñu amoon sax ay divergences. suñu de mais lépp du ñu am problème. mais fi problème bi nekk mooy dañuy utiliser. ñi xamul ñi xamul. merci dañuy tiital. mooy sànq yaa ngi wax fii danga wax benn wax bu am solo suñu camara mooy da nga ni baat la boo xam dama dégg ñu koy wax boobu ba léegi mais du ñu wax mukk lan la. waaw léegi loolu moom mooy. stratégie te kii koy kii diaboliser moroomam naan. salafiste la moom kenn xamul lu ma doon. en fait amalgame amalgame lañuy la ñuy utiliser xam nga américain yi après 11 septembre bi dañ def même stratégie bi mooy la stratégie. de la peur du chaos mooy ñëw wax ne terroriste terroriste terroriste yenn yenn intellectuels occidentaux yi dañ toog ne mais terroriste mooy lan foog ñu xoolaat terrorisme lan la parce que moom bi dafa am amalgame bu ci am c'est ambigu te bu ñu seet fa mu cosaanoo jógewul ci. non du tout mais ñoom sax dañu jaar ci terrorisme par exemple résistants français yi nga xamante ni temps yi leen bu ñu wax ay posé bombe mais euh, Ira Ah, IRA daan na posé ay bombe avant ñuy wax Irlande Irlande du Nord seen diggante moo tax ñoom boo gisee ñu mën a comprendre palestiniens yi bu Palestine di di def résistance seen diggante ak euh, israéliens yi nga gis irlandais yi nord irlandais yi dañuy jàppale palestiniens parce que dañ dund loolu France léegi lañ rali yow changé seen position mais France ci ñi njëkkoon ñi gënoon jàppale palestiniens yi lañ bokkoon parce que dañoo dund lu mel noonu ñoom Afrique du Sud. Euh, do, euh, euh